asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi chaîne football TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su dafa leen vidéo mbokk internet yi dama gis waa Maroc ñu am renfort de taille muy Brahim Diaz ñoom moo ngi si yoonu dem Maroc renfort de taille la ndax ku si am match Ligue des Champions alay euh, Real Madrid contre Leipzig fële ci Allemagne bii boobu mu dugal ak match bi continue match am c'est excellent que ça soit Manchester City que ça ñëpp kàddu gi benn la crack la prodige bu am talent Nous au Sénégal dañu nous renforcer mois de mars on a deux matchs Nous avons deux matchs qui ont pour man match test la nous doon de euh, supporters sénégalais n'ont nañ seen joueurs. mais nous match pour fële Amiens que ça soit contre Bénin ou contre Gabon Nous nekk deux matchs xamante match test mais sénégalais ont un renfort de taille. selon vous kan ngeen bëgg kan kan ngeen mën a gis rek ñun nag am nañu renfort de taille selon vous ci commentaire wax leen mag parce que dama leen wax secteur par secteur au niveau gardien de but Yehvan Diouf bu ñëwee mënul nekk renfort de taille au niveau de la défense Arona Sangati c'est un très bon joueur mais du renfort de taille selon moi donc y a y a Camara bi gis noonu aussi du renfort de taille man pour man renfort de taille bi ma gis mën naa juum nag sama xalaat laa leen wax bàyyi aussi yéen ngeen joxe seen xalaat pour man renfort de taille bi Cherif Ndour la ma doon xam nga tax mu nekk su Cherif Ndour jeune la am euh, profil am raar na si taxawaay si technicité si poste bi mu yor si euh, vision bi nga mën a am ak moom si essence bi ma yoon nekk na benn jour boo xamante ne mën nga tabax une génération bu xamante ne si Cherif la ba Cherif Ndour xale bu ndaw la mais Soumaré par rapport ak dernière prestation que ça soit Leicester blessure yu bëri yi ñëw Séville ça reste c' est le joueur bu xamante ne en temps normal dama leen wax Boubakary Soumaré mooy renfort de taille mais jamono bi alors on parle dañu dañu perdre joueur yu bëri tellement mënoo wax ne kii mooy bu ñëwee kii maanaam ku xam bu ñëwee Sénégal day yokk dëgg day yokk dëgg parce que Soumaré bu ñëwee dina yokk Habib Diarra bu ñëwee dina yokk Andy Diouf bu ñëwee dinañ yokk yeneen joueurs yu bëri bu ñëwee Assane Diao Euh, keneen ak keneen mais renfort de taille ku xamante bu ñëwee takk ma dama gis ne c'est un plus value maanaam grand plus pour l'équipe nationale du Sénégal loolu nag si man si ma ki ma ko gis ci ki ma ko gis laa wax euh, kii la booy bi la parce que xam nga bi qualité bi ma gis ci moom talent bi post bi lépp li mu boole moo bari moo tax ma ne Seydou Ndour la naa nag yeneen joueurs yi taxu ne xamuñu dara wala déedéet booy booy Assane Diao booy bu baax la boo ko amee ci côté bi dañu manqué ay joueurs du côté mais pour man am nga Amara Diouf am nga euh, ay Alioune Badara Baldé Alioune Badara Mané Cheikh Sabali euh, Sambou Soumano euh, Ndiaga Yade Pape Ousmane Sakho on a des joueurs de côté Demba Seck et autres mais au niveau du milieu terrain Cheikh Ndour moo fi si Cheikh Niass ñoo ñëpp ñoo ngi fi. mais ku seetaan Cherou Ndour surtout match amicaux yi nga xam ne am na lu mu mën en tout cas pour man renfort de taille dëgg mooy Cherou Ndour maanaam ñi ñëlee bi ñu andi Brahim Diaz andi nañu Sofiane Diop am nañu keneen ak keneen mais boo andi Brahim Diaz on parle d'un joueur bu xamante ne Real Madrid la wax si Cherou Ndour tamit on parle d'un joueur boo xam Paris Saint-Germain la nekk waa Paris Saint-Germain am ci moom yaakaar fay ko salaire bu takku prêté ko Braga yaakaar bu rëy la Soumaré euh, c'est normalement moo waroon yor li ma leen wax ni moom la waroon doon boo jëmee di côté de du côté de euh, Habib Diarra aussi bi mën na nekk renfort de taille parce que ñu bëri mën nañ ko mere mais Habib Diarra ba su ñëwee Sénégal yi ne li Nampalys Nampalys li ko dal Sénégal moo koy dal ak euh, Bouna Sarr lépp lu mu waxoon lépp lu mu defoon Sénégal dañ koy fekk booy bu baax la loo ko contre contre moom wax wax boo waxee dëgg te yàlla rek a tax ñi def sa masam ay masam laa wax nag wax ma ñi ko saraan booy bu baax la que Andy Diouf je reste sur ma parce que moo fu nekk gaucher moom ak Pape Gueye affaire mais voilà mais pour man waa Maroc ñoo ngi liggéey waa Algérie liggéey nañu am Ousseyn waa Awar li may wax nii nag taxute yow yaay si équipe day baax de c'est pas parce que da woo bii na su ne da ngay gañ waa Maroc yi dem nañ amuñu dara du loolu affaire du loolu de équipe mooy gañ mais nag comme que ñun dañu war a tabaxaat beneen génération beneen ay beneen génération boo xam booy ñoo fa nekk Pamatar Bamba Dièye Iliman Ndiaye Noah Fadiga euh, Arouna Sangaté Formose Mendy Yvan Diouf beneen génération la loolu c'est entre

donc euh, beneen sama benn TikTok monétisé wu ma ko donc bii nag bëgg naa ngeen accompagner ma dooleel ma bu baax a baax maa ngi ko tuddee Mouhamed Sène Football TV donc boo ngeen ko tapé sur la net incha allah ne si sur TikTok di ngeen ko gis Mouhamed Sène Football TV mbokk yi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur Sène Football TV.